ndekete coow dafay am moom ñii nga xam ni ñoom lañuy wax njabootu sëriñ bi muy góor ñi njabootu sëriñ Béthio góor ñi ñu mag ñi ci njiitalu ki ñu naan femme sàmb ñu koy woowee sëriñ Saliou Gueule Tapée ñoo ñëwoon tey sama kër gii nga xam ni fii la ma sëñ Béthio dël maag sama njaboot ma ne fi ñu ñëwoon fii ci kër gi ne dañu fiy dugg ñu ne leen soxna si nekkuñu fi nekku fi ñuy saaga ak a dóore muy moom ak rakkam yu góor yi nga xam ni ñoom ñoo féete mag ñoom ñëpp indi fi attroupement di proférer ay menaces ak di saaga ba di def ay menaces de mort xam naa nag loolu moom ki nga xam ni moo dund loolu te dig taalube ne ci kër gi ma teg ko fi moom lañu fi fekk moom dina wax waaw dem nañu ba dóor ko waaw di leen wax ni nag lii day situation boo xam ni baag léegi mi ngi perdurer te mënta ñàkk nag ñu saisir kii de droit ndax euh, Sénégal dañ koy wax naan réewum jàmm la état de droit la du nag euh, lu neex waay def ba tax na boo boobaak léegi moom ñi ngi subir ay ay ay provocation yoo xam ni moom ñi ngi ne tekk waaw ñi ngi wax ay wax yu ñaaw jëmale ci soxna Aida jëmale ci ñun te boobaak léegi ñu ngi ne tekk waaye nag lu ëpp tuuru ndax antécédents yi li jiitu mooy gannaaw bi sëriñ bi dogal yi am daaw ci le 7 mai 2019 avant Korité gi deux mois après moins de deux mois dañ ñoo woo di ñu laaj lan ku ne lan la yoreel sëñ Béthio fekk nañu ñun ñu ngi koy jooy ba tey ku ne loo yor ñu ne déetawaay ñu jékki-jékki fépp foo xam ni sëñ Béthio kër am na fa kër moom jël nañ ka fa sëriñ bi tegoon dàq ko génne ko ne ca kër ga di lëmbe te ñun kat ñi ngi toog boobaak léegi suñu kër yi ñu sëriñ Béthio may ndax may nañu kër fu ne fépp foo xam ni sëñ kërub sëñ becco la te ñun ñëpp ñu bokk ko dañ koo bàyyeek ñoom ñooy dugg ñooy génn nu mu leen neexee ñemewuñ faa dugg waaye nag li ëpp mooy nag ñu ñuy fekk suñu biir kër yi di ñu menacer di def ay menaces de mort ak ay violation de domicile ndax à Touba fi nga xam ne dañ ne ah foofu kat euh, titre foncier Serigne Touba la ñu ne xaar ñu njëkkee foofu ba daaw fekk suñuy kër yi ñu sëriñ bi jox dëkk tabaxal ñu ko dëkkal ñu fa depuis 2011 ñëpp xamee ñu fa ak sunu njaboot ñu dem fa dàq ña fa nekkoon daj ji suñuy kër changer serrure yi dëkkal fa seeni seeni nit ne duñu duggati ci kër ya ñu ne pat ñu ne déeta waaye jamono jëlee ñu wool ma fi gendarmerie fii ma Madinatu Salaam kër gu mag gi ma dugg sama biir kër di nettoyer ñu ne damay provoquer may ñëw di waaye sama sëriñ ak ñuy jàng xasaayit ñu wool ma gendarmerie ma ni pat tey nag tey ñu groupe moom ki naan femme sàmb ñu ñu naan sëñ saa Gueule Tapée moom nee nañu mooy seenu kilifa mu taxaw fii ci buntu kër gi di dagg ay saaga ndey ànd kook ay rakkam ñuy génn ay arme blanche waaw loolu nag ma ni lu ëpp tuuru kon maa ngi interpeller l'état du du du Sénégal waaw di ci jiital président bi ak ñi nga xam mooy les autorités compétentes ndax lu ëpp tuuru te ñun kat dañoo am ak njaboot ak sëriñ bi te lépp li mu li nga xam ni moom warlul na ko boppam def na ko waaw teg na lépp ci yoon waaye boobaak léegi ñi ngi ñuy wër ak di wër lu ñu am ak bëgg dal suñu kaw ci rek maanaam mbiri mbiri koppar mbiri xaalis fu xaalis ne fu kër ne ñu ngi koy wër waaw sonn nañu nag